alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamualeykum tey la aljumaa ji mujj ci at mi tabaarakallahu suba la ñu séentu weer wi loolu mooy tekki ne kon atum jullit ñi jeex na at mi jeex na nag kenn ku ne la ca war jàngee war fa ca taxaw setlu moy ñun ñoy at mi suñ dee tek par at di tek par at légui tay ñun ñoy jeex ndax kenn ko ne yàlla laa jox mandat waaw ku denc témir nak bis boo jàll teggi deureum jeex ga dalay bett farlul ci ibadat at mi jeex na mooy dund gi jeex na ku fi yalla andi nak am lum la fi indee sant la ko bude sa dund mu ngi ko du jege ak jeex war nga taxaw seetlu war nga nat sa bop dugg sa manakan dal di laaj sa bop ay laaj lu tax nu andi ma fi li tax nu andi ma fi ndax ma nga ca li tax nu andi ma fi ndax ni ma ci nekkee noonu la wala damaa nekk ci ni ma ci bëgg a nekkee rek ndax lii may def bu ma laajoon lan mooy farataya lan mooy sunna ya naka la ko alayhi salaatu defee ndax danaa mën a tontu loolu ku nekk danga ko war a laaj sa bopp ku ko laaj sa bopp danga am tontu mbokk yi bis yi di dem weer yi di dem ak yi di dem buñ jàpp ne ñoom ay gan la ñuy ñëw rek di dem déedéet ñoom bu ñuy dem dañuy yóbbaale li gaay naan diw de moom demee daf maa yóbbaale ndax ku toogal ci jotaay rek ngeen ni mbooloo am fa koo xam ne lu mu dégg mu siiw yaakaar naa da ngeen seggaat li ngeen di wax ba baa ngeen teexali ko moom bis yi ak weer yi ak at yi bu ñu demee dañuy yóbbaale suñuy information yàlla diw de man diir ba ma fa nekk daal gisuma mu jàng alxuraan benn yoon yalla diw dal diir ba fa nek gisuma mo dem jakka ben yoon yalla diw diw diw diw su ko defé joxe rapport ba motax ñiko xam Cheikh Bamba buy bind danaan yéen weer yi yeen bisi ngel la waaye su ngeen demee ca yàlla na ngeen ko seere ne ko nangam lan fekk muy def ca nangam lañ ko bàyyi ndax moom xam na ne ñoom ay seet lañ buñ demee dañuy ñi nga xam ne suñ cër yi yàlla boole ñoom ñoom buñ ci yàlla luñ mos a def dañ ko wax léeg-léeg sax nga xaw koo attaque naan ko yow ni yéen ndax yow maa yow ko doon ànd mu ne leen bu ma fontoo kii di ma wax loo ku mu wax loo da wax kon bis yi ak weer yi lu buñ ñëwee luñ xam ci ñun buñ demee dañ ko wax yàlla moo tax lislaam santoon ñu ne nu yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nangu ne yàllaay seen kilifa ittaqullaha ragal leen yàlla te ragal yàlla mooy jéem a jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yépp bu ngeen ca na natt wal na xayma wal tanzur na calculer nafsun bakkan bu mën a doon maa qaddamat li ghadin anam lan la defagum ngir ëllëg yowmal xeer moo tax malaaka yi nit bu faatoo li nit ñi di laaj mooy ah ana moom lu mu fi bàyyi amoon na ay terrain ana place ba mu ngi doon dox compte banque bi xool leen ko yéeg nit ñi moom foofu la ñuy vocaliser ñoom loolu la ñuy malaaka li ñuy laaj mooy lu mu jot a jiital ndax xëroon na ci jaamu yàlla ndax sàmmoon na boppam ndax sàmmoon na ay cëram malaaka yi foofa la ñuy nekk légui nak comme yow yàggoo fi so fi nekkee nekk sa bop rek àdduna di jek mukk sa so xëyee japp ne yow dang ko wara a mën a te lu jek nga bëgg def sa programme yëpp jagal ko moy dëgg-dëgg sankuté kon motax ñu yitté yi mëna bari lu pression sociale bi mëna bari bu mu tax nu faté suñu bop ndax nit ñi am nañ fu la ju day ni suñu yaakaaree ci yow dara loo bëgg ñu jëm ko buñ yaakaaru ci yow dara ñu bayila boko boo bam mënee mëna to ko sax am nañ fu la ju day ni la fi ñuk dem seeti sa morom kon nit ñi ñoo tardel kenn kon loolu la l'islam santaane kenn ku ne nga xayma sa bopp natt sa bopp weer yu ma génn lan laa ci def ci lu baax ndax yu baax loolu sax moo tax mag ñi dañ daan def bu ngoon jotee dañuy jël lax dari jël tarjumande mooy lim njëkk a jàngale ci wa yaxaruma alayhi li mu wax ne mu kàllaf wuru koo def ah waaw man tey ndax wax naa lu dëgg ndax tey jëw ndax tey jaxase naa ay nit ndax tey xoolal moo tax xool su ko defee bu ñu corriger seen bopp gis ne ah bii de tey ci la naa def ko bu ëllëgee ñu jéem ko bañ def ñoom noonu lañ daan def nga xam ne ñoom bis bu set dañ daan seen bopp waaye euh, boo ko dee def li njëkk a war rek mooy nga xool sa temps contrôlé ko moo tax nga Bamba bis bi da ko daan xaaj benn tubab daf ne man dal dama gane suñ tuba nek ci kër ga di sétlu ay jëfëm ak taam xol ba xam mom naka lay pratiquer ba tax mu am doole ju toll ni ci yalla waye day def mom bu jullé suba ba suba daf ci am programme bu tu suba ba tàkkusaan am na lu ci war def ci yalla tak san ba timis am na lu ci war def timis bu bët am na lu mi def xaj bi day jang alcorane guy muy bind xam-xam yeeg salawat yeeg yooyu benn bi mu wéet di xalaat yàlla ak melaw yi ak kéemaanam yi ak àdduna gii ni muy demee nii bi ci des muy julli xam ne moom programme boobu la wutaloon boppam te loolu lu gàtt gàtt na ko def léeg-léeg su fekkee sax yow xëy na sa xam yaatuwut taal soow alquran di ko déglu nag ku ne man moom su ko defee nga ne ah bis bi kat man lu gàtt gàtt danaa taal soow alquran. feruma ijji waxuma sax ko fer ijji wala ko mën a jàng waaye yow feroo ijji sa bopp bi. nga ne dana wut ben 30 minutes wala une heure de temps bo xamne damay tal jang yi tok di deg boko re def dir bu néew da nga yek ne am nga cër ci yalla da ko yalla jottal rek nga yek si kon lolu lañ santaan su ko defé nga corriger xol sa jëf yu bax say farata ndax mi ngi mat ndax yaangi sa sàmmante wala da ngay tok ba yek ko rek def kon ndax bo demee ci lakh de gis nga lolu la njëkk wax suñu Tuubaa def ne awwalu maa awjabahu rahmaanu qataan ala al mukallafi l imaan laax dana ne awwal waajibin ala al mukallafi tasxiixu imaanihi mooy lan nit ki fu daa war di natt boppam di war di xayma boppam di xool fan la toll loolu moo tax téere yépp ko bind su ko defee ñu baax ñi ca lañ newoon moo tax Seydina Abubakar danaan corriger ay cëram léeg-léeg daan jik jik rek ñu fekk ko mu téye aw làmmañam ñu ne ko yow xaritu ba alayhi salatu salaam ni nga baaxee ñëpp ñeela lu la xiir ci lii ngay méttital sa jëmm ji nii ak sa làmmañu ni mu ne len damaa xam ne bu may rus ëllëg sama kanam borom moom ñi moo rus doo ndax du wax mukk lu xam te du bu fekkee kooku nga xam ne mucc ay mooy ragal boppam di ragal boromam ba yegg fofa kon ñun ñi nga xam ne liñ centre dong la ñuy def kon anu luñ def moo tax daan na wax ne su ngeen mënta ngir ragal yala sax na ngeen joye waaw mbiri àdduna yi bu ñu leen jooyloo matu ko waaye jooy ngir fàttali ko say njuute jooy ngir xam ne ëllëg fa nga jëm nga xam ne ma yawma idin tu'raduuna laa taxfaa minkum xaafiya fii lañ mën a nëbbu ci àdduna waaw def dara fexe ba kenn du ko yëg wala nax nit fexe ba du ko yëg wala def lu garaaw fexe ba kenn du ci wax loolu fii la am ci àdduna waaye àllaaxira moom ña ña la njëkkoon a gane jamono min la dul aadama ba ki mujjë wacc aduna ñepp dañuy tew te bu sutura amul lo ma sa def ñepp dëkk mo tax nga gis kenn nga di jaay man diw ñuma ko nawé won nekk té mom li la nekké yu aduna té fekk yépp ñaaka ñaaka ñàkk sa bop moko waral mo tax ibrahim atay ñi def ne man dal dama jël sama bakkan bi mu melni dama def plan aljanna def plan safara ne ko nak kaay damaa bëgg nu waxtaan ma wax la lima ma ne man aljinaa yi ni gis nga ni mu rafetee gis nga plan yi gis nga tabax yi ni mu guddee kenn du fi raflé kenn du fi joxé dépense amul choona gis nga jongama yi muy ni lu ko gëna a neex kenn xam ne ko palaaw safaraa ngi ni la fa am moy dañuy tak say loxo la ko say dokk di la diri la fa am moy kenn ko ne da ngay saga sa mor nan ko yow day yak nga suñu suñu safar si metti na way bo fi dugg toll kon toll ni ñu lay jox ay dëtt yu tang nga di nan mbuul mo kalau am na fa dag say cër ci safara ak yeb na ma sama bakane ko dal ñaar yaangi ni bu neex baangi ni bu naqari baangi ni bu la neex nak tan xamne mom present ko génn na ci neena ko aljina dal fekke mom nga bëgg dem yoon wa ci jëm ni gis nga yu neex yi mala wax bu safar nga bëgg dem faale wa kenn bismillah kon kenn ko non nga wara def ak sa bakane xex ak mom ne ko nak man la jëm motax euh, malik ibnu dinar tabaarakallaahu dafa njëlbeenu woon ak safaan ne ci bakkanam rek di naan di agressé di nangam yàlla dogal mu am soxna am tu tànk tuddee ko Fatima nee na bi mu demee ba am ay ñaari at yooyu buy naan sàngara rek day ñëw tuur ko waaw day ñëw tuur ko daanaka fu mu nekkee ci lu bon rek mu ñëw mel ni ku koy déranger nee na xol gi de xaw a jëm ci yàlla tuuti ba mu yàgg mu am ñeenti at faatu seytaane nag duggaat ko ne ko yow da nga li ngay def ni da sedd da nga war nan sangar bu wor ba ngay fàttali ko ne sa nan bis ba mosoo ko naan neena ma def ko yàlla natt ma mané ne geex rek nelaw man nelaw dal di gént ñu né yawmal qiyam xiyam taxaw na waaw suuf si ne rëg rëg rëg ñepp genn neena bi ñepp genné man ma xol waye gisuma kenn all bi yaatu bi bëgg dé man kenn képp a fi né mané hé waye li lu mu doon ah, yawmal qiyam ni la mel bi wax loolu rek seen ñangor wo xamni jaan jo xam namu toll rek mu engagé ma sant sama xel dawa dawa daw bam yag ma seen ak goor goor gaa nga néew kàttan lool ma ne gi doo dimbali ci li top ma munaka ah, bëgg na la ci dimbali nit waye sama kàttan yéegu fa jëlal yoon wé nee ma dawa dawa daw ba sonu fekkaat fa goor ga mu ne ma mënuma laa jëlal yoon wé nee bi may daw degg ay kaddu yu xale ñaan Fatima xettalil sa bay neena ma yaakaar ah naan sama dom jee neena bima bi ba yexsi gis na sama dom jee mu xëcc ma tax ma ci boppam daldi song jaan ray ko neena ma ngi tiit ba melni am ba melni am ñew bi ma ko Fatima jaan di ma gis ni lu mu doon mu ne ko bàyyi jaan ji nga gis mu am doole bay bëgg a dee mooy jëf yu ñaaw ya nga doon def maanaam daa meloon ni ñàngoor wu ndaw nga di koy yefal di koy yefal dina ci yu bon yi te lu bon loo def rek mel nga ni tibb nga loxob ceeb jox ko mu lekk bu yàggee day am doole mu ne ko góor gu néew doole ga nag mu ne ko góor gu néew doole ga mooy sa jëf yu baaxee da nga koo faaliwut moo mu dem ba mënu ci yow dara bu safara taxawul nii aljana taxaw nii jaan ja lay dugal fa mu bëgg a dugg ndax mu ëpp doole góor ci mu ges ko ne ko bàyyi mu ne ko am mu ne ko alam ya'ni lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah nee na ma ne xëfit yeew sangu yeesal sama njàpp dem ci jàkka ja bi ma demee fekk imaam kàbbar tàmbalee jàng même aaya bi alam ya'ni lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah ma ne ñii ci man lañ nekk mooy xanaa jotul nag ñi woote woon dañoo gëm yàlla ñu fexe ba sellal seen xol jéem koo dundal ci jëfin digël yi ak bàyyi tere yi loolu war na ko ne aqul ma tasmaxuun wa salaamu aleykum